xasan aboubacar baabu ñun ñëpp dañuy bokk déglu sëriñ Mansour si Abdou mi nga xam ni xalif général de Tidiane sëñ Babacar si Mansour moo ko yabal kon mbokk yi ñu déglu sëñ Ba sëñ Mansour si Abdou sëriñ bi bismillah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 walxaatimi lima sabaq naasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim amma baad ayuha almuslimuuna walmuslimaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yu tedd yi fi teew ci njiitu ak njiitalu ak ndigalu ak ndénkaane sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour xalif général de Tidiane di sama kilifa maag ñi ma ko bokkal fii yépp ci mbokk yu tedd yi di suñu sëriñ ñu koy ñaanal fan wu gudd ak wér ak mboolem kilifay lislaam bi ak mbooleem kilifa yu ñu am ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna ak wàllu aada ci ndigalam mu yóbbaale rakkam yu tedd yi ak mbokkam yu tedd yi nga xam ni ay doomu baayam lañu ay doomu ndeyam lañu ay doomu bàjjanam lañu mu bokk ak ñoom responsabilité bi ci li seen maam Cheikh Al Hadji ak maam yu baax yi mu àndaloon bàyyi gannaaw génération ay génération di ko donnante te ñaanuñu benn yoon kenn di ca mujje pusa samu réer dañu ñaan muy continuer di sax ànd ak ndam ànd ak sakk ak teraanga ndax yàlla da koy laaj ëllëg ku ci nekk ci ñi yàllay teg ndono loolu ci seen loxo ña jiitu di Cheikhul Xaaju Malick Sy ibnu Cheikh El Hadj Aziz Maodo boobu ba léegi yéen dégg muy wax ni waxul ni sax sëriñ Babacar magam la waaye sëriñam la ndax moo ko yar ci loxoom la gimmee ci kër baay alxaaji Cheikh Ndiaye maa béy ca njéeneen ca Dakar ak feneen fudul foofu ci Tiwaawan ak feneen mook Papa Muntaga Tall surtout Pape Thierno Seydou Nourou Tall ñu ànd ak Bachirou Ndiaye bu Pape Alxaaji Cheikh Ndiaye Mabé ak ñeneen bokk na ci ñi nekk ci keppaaru xalifa bi gannaaw sëriñ Cheikh Alxaaji Malick Sy Aziz sama mag sama kilifa sama sëriñ sëriñ Babacar Abdoul Aziz di suñu soppi ñun ñëpp amidul mahad al mubarak bi zaawiyati Cheikh Alxaaji Malick muy doyen institut islamique bi nga xam ni moo nekk ci zawiya Maam El ji Malick te institut Maam El Hadji Malick bi fi am moo jur institut yi nekk fii yëpp ci biir dëkk bi ak yeneen yu nekkul ci dëkk bi nekk feneen ci senegal ci lu bare bare sëñ Babacar Mansour mi ñu yónni daf ñu boole ak sama mbokk yi nga xam ni kenn ngi nii ci sama wet di rakkam di njabootam comme ni ñu ko doone ñun ñëpp muy Serigne Cheikh Tidiane Sy Abdoul Aziz son excellence ambassadeur u Sénégal woon ci réew yu bari ci réewu arab yi Arabie Saoudite la mujj nekk ambassadeur ba ni yàlla dogale mu ñibbisi gannaaw Émirats Arabes Unis ak Oman ak Qatar mu ngi ni toog ak rakkam yi nekk ci wetam yépp jafe na pour ñu mën a tudd ñépp ndax fa tabaarakallaahu suñu kilifa bi suñu sëriñ yi nga xam ni sëtu Cheikh Alxaaji Malik lañu di sëtu Cheikh Seydi Aboubacar si radiallahu anhu ak magam ya ak rakkam ya ñoom ñépp dugg jiitu nañ ñu ci tudd turu ñoo ñi ñépp di bokk gi muy sëriñ maam Abdul Hamid si bu cheikh seydi abdul aziz al amin muy magam cheikh mouhamadul moustapha si bu cheikh abdul aziz al amin fa tabaarakallahu muy suñu doomu baay bi suñu doomu mag docteur Pape Makhtar Kébé bu baay alxaaji Malick Kébé ak ki nga xam ni moo doon joxe kàddu yi muy suñu rak sayid al xalifa abu bakrin ñaŋ di njabootu cheikh alxaaji malik yàlla tegoon ko ci loxo cheikh seydi abdul aziz al amin ci ndigalu waajuram yu tedd ya mu yar ko mook mbayloo ñoom Paate Jóob ñoom ñi nga xam ni ñu ngi ci biir organisation bi ànd ceeg seen mag yu baax yi mu di sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz Al Amin ci keppaaru moom ci boppam ci keppaaru magam di sëtu Cheikh Al Hadji Malick di sëtu Cheikh Al Khalifa di doomu sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy di taawam di sëtu mag ñi muy sëriñ Mouhamadul Mansour si Jamil ak képp ku mu bokkal Sidi Jamil radiallahu anhum muy sëriñ Cheikh Tidiane Sy mi nga xam ni mooy magu Pape Khalifa Sy Babacar bu sëriñ Abdoul Aziz sëriñ Cheikh Tidiane Sy moom sëriñ Mansour di taawam di xalifaam ñoom ñëpp ñuy njabootu Cheikh Seydi Aboubacar ci ndey ak ci baay ak seen rakk sëriñ Mouhamadul Habib Sy ak sëriñ Mouhamadul Moustapha ñoom ñi nga xam ni jamono yële ñoo ñeneen ci ñi sëriñ bi tànn ñoo doon dem di fekk kilifa gu tedd gi mel ne son excellence monsieur le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste tin xam ni turam day dellu ci kenn ci ñi àndoon ak yonent Yàlla Isa alayhi salaam mu Yuhanna al-Mahmadani mooy Jean-Baptiste ak képp koo xam ni nag yaa ngi fi te doon ku yanu responsabilité ci ndigalu mag ñi doon na lante ko ba mu yegsi ci sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour muy la coordination des daayira Tidiane bu Cheikh Ahmad Tidiane gay de toutes les daayira ci diggante Sénégal Mauritanie ak Gambie waaye mu fekk ci fédération bi jur fédération yi mu di fédération bi nga xamee ni mooy daairatul kiram ak ña ca aju muy fédération daaira ahmadiya ak benn beneen da beneen pàcc ba ca des di daaira plus mu ñetti Mansour yooyu muy Mansour Diagne defe naa ni di Mansour Pouy ak Mansour hmm? Mansour Diagne Mansour Pouy xam nga ñetteelu Mansour bi du suwaabee waaw Mansour xam na xam na xam na ñëpp waaye ñëpp xam nañ ko tabaarakallah Korea defe naa ni waaw ñooñ ñëpp ànd ak nag le président international de COSCAS muy président alxaaji Ousmane mi nga xam ni moom itam liggéey bu mucc ayib lay def ndax ñoom ñëpp dañu am cohésion ci wàllu liggéey bi ak membre yu ràññiku yi nga xam ne ñu ngi ci ñëpp nag di liggéey ci jokkalantey loxo jokkalantey xol ak xel ak xalaatin ak xalaat ba liggéey bu rafet bu mel nii mën a am ci organisation bii ngeen gis tey ñu ànd ceeg la haute autorité étatique du Sénégal muy son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ni ñëw na fi nemmiku si xalifa bi ak njabootu xadra bi ànd ak ay kilifa yu am taxawaay ci keppaaram gannaaw gi itam son excellence monsieur le premier ministre Hadj Ousmane Sonko ñëw na fi moom itam démb rek mi ngi fi woon bi ñuy jox sëriñ bi ñoom jamaatu nuur a sunniya ci njiitu docteur Mouhamadul Mokhtar Cissé ñëpp xam post yi mu mës a occupé yëpp ci biir Sénégal ci état bi ñu dénk ko ko mu taxaw ci ci anam bu rafet mook mbooleem collège des ingénieurs yi mu àndal ci liggéey bi ak juristes yi ak administrateurs yi ñu nekk ñu ko ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu gannaaw yàlla ci ndigalu sëñ Babacar Mouhamadul Mansour ak mbooleem njabootu xadra bi ak mbooleem jullit ñi ak mbooleem ñi am yéene yu rafet pour wane seen cofeel ci seen maam Cheikh Seydi El Hadji mi nga xam ni moom la ñu doon euh, dundal ndono li mu fi bàyyi mook génération bu tedd ba mu àndaloon mbokk yi noonu rek la les générations se succèdent te ku ñëw rek il y toujours du pain sur la planche adduna kenn du ko mën a liggéey ba mu mat cent pour cent da ngay liggéey pour époque pour des époques bien déterminées ba fa sa doole yam sa ingéniosité yam fa sa xarañ yam fa sa yéene yu rafet yam fa ak coobare yàlla ànd ak sa itte moo tax itte rekk am solo soo demee ba